bayre mo ngi ci bir alquranul karim nak ni ma ko waxe toujours rek yàlla wacce na ci safaray den ak safaray yaram wa nunzilu min alqurani ma huwa shifaa'un wa rahma amna ci ayat yu nga xamé ayatul fath yi lañ koy tuddé ci walu ubbi wërsek la amna na ayatu sifa moy aaya yu nga xamante ni bépp tawr bu nit saafa am man nako safara amna am na ayatu risqi tamit aaya yu nga xamné ci walu wërsek lay dox amna na ayatu zuhrati moy aaya yu nga xamante ne ci walu ciofel lay dox moy loolu nga xamante ne nit ñi mën nañ la sop aayooyu ci boko jëfëndiko tax xam nañ ko wara a jëfandikoowee nit ñi mën nañ am nga am cofeelu nit ñi cofeelu nit ñi nak am solo lool ndax doomu adamay yi njariñal ci seen loxo la nek buñ la buñ la soppé mën am mu gëna yomb waye nak wërse mom yalla suñu borom moko joxé secret bi ñuy partager ak yeen nak secret bu baaxa baax la ci walu ubéku xam jombul ne bari na ay ndong talib yi nga xamante ne nañ leen ko jox baaxé leen ko ñi nga xamné ne dañuy yëngatu ci walu asrar wala ci yëngatu ci walu kurus ñoom it gis nañ ci seen bopp lool bu baax a baax wax dëgg yàlla ñun istimal nañ ko mooy jëfandikoo nañ ko pratiquer nañ ko muy lu am solo lool te baax ci wàllu ubbeeku nag surtout ñi nga xamante dañuy yëngatu ci wàllu njaay ak yu demee naka noonu wala ñu bëgg yokkute ci wàllu yëkkati ko naka nga koy defee nag dinaa ko euh, bind après incha allah rabbal alamin expliquer ko ba mu gën a leer ci yéen da ngay fexe ba bindlu fatiha fatihatul kitab mooy saar wi ngay bindlu ba mu jeex quarante cinq fois Denga, bo boo nga bind la ilaha illallah moom it la bind 45 fois denga day bind fatiha 45 bind la ilaha illallah 45 fois bind ay bi may bëgg wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan Denga nga ci surat maryama mu bind ko momit 45 wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan 45 bind rabbana ikshif anna azaba inna mu'minuna bind ko momit karan 45 rabbana kasif ana al azaba inna muminuna bind ko 45 après mu doog a bind li nga xamante ne moo bi nga xamante ci la ñu secret bi mooy arsata maksahu alqana xayun bu ñu bindee bu ñu photo kii bi dugal ko ci écran bi da ngeen ko gis incha allah xam nañu bi mooy arsata maksahu alqana xayun moom da koy bind 45 lim bu mu bind aaya la koy bind fatiha 45 la ilaha illa 45 wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan 45 rabbana ksifana azaba inna mu'minuna 45 bu pare mu bind arsata maksahu alqan hayyun mu bind ko 45 loolu moom lay jël mu def ko saafara di ko raay ci yaramam jërul muy sangu nag mais nay raay yaramam bam tooy waaye nag dafay dafay dafa ànd ak dafa ànd ak benn zikkar bu fekke dang koy def man na and ak zikar sa laal wi nga koy laal nak amul limite man nga ko garder ci benn bouteille rek def ci parfum bam bari nga diko ko laal yow mi nga xamé nga yëngut ci walu commerce wala ngay def walu business ak yoy bëgg ci walu clientèle man nga koy utiliser deng nga daf baax na lool la en tout cas ci walu ubbeeku wursak wax deug yalla légui bu ko defee nak da nga bo boy laalee ci safré bonopi da ngay japp ba sell bo mané nga julli nga julli juroom benni rakka nga julli juroom benni rakka rakka bu ci nekk day ñaar raka yu ne da ngay sëlmal nag maanaam naafila da nga koy dagg boo julee ñaar rakka sëlmal julliwaat ñaar rakka sëlmal julliwaat ñaar rakka sëlmal muy juróom benn rakka dégg nga rakka bu ci nekk fatiha benn yoon qul huwa allahu fukki yoon ak benn waaw rakka bu ne fatiha benn yoon qul huwa allahu yoon ak benn mooy ixlaas boo sëlmalee nag nga zikkar fatiha vingt et un fois astaghfirullah cent trente deux salaatu ala nabi boo man cent trente deux après nga teg ci aaya bi in tastaftihu faqad jaakumul fathu nga def ko 132 in tastaftihu faqad jaakumul fathu 132 après nga def nasrun minallahi wa fathun qarib foofu nga yem 132 nasrun minallahi wa fathun qarib 132 après nga sigar yaa latifu 903 yaa latifu 903 waaw noonu nga koy defee bu dee nag ki nga xamante ne mën na bu pare bu ko neexee ma tekki ma tekki talsam bi mooy arsata maksahu alqana xayun yomb na trop arsata makasaw alqanaxin arsata makasaw alqanaxin arsata makasaw alqanaxin ba mi 903 wala 1111 moom it ba pare nga tëjee ko téeméeri salaatu ala nabi lu baax la ci wàllu ubbeeku nag mën nga ko continuer di ko def bu la neexee amul limite ba sa saafara di jeex même bu saafara bi jeexee mën ngaa continuer bu la di zikkar zikkar bi dégg nga bi tamit bu dee mënoo la bu dee da nga nekk ci oto mënoo naafil la bu la nga def zikkar bi kese zikkar bi mooy li tàmbalee fatiha 21 astaghfirullah 132 salaatu ala nabi 132 ان تستفتح فقد يكون فتح 130 نصر من الله فتح قريب 130 يا لطيف 903 ارسلت مكس وعلقنا حي نغا ديفكو 903 ولا 1111 بولا نخي بو منول بو منول ذكر آه، تالسام بيتم منغا باي غا ذكر يي رك ان شاء الله كون نونو لا خمنا بو خرفي ما جارات رك بودي دنج كوي بيندلو داغي بيندلو فاتحه 45 لا اله الا الله 45 وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقليا 45 ربنا اكشف عنا عذاب انا مؤمنون 45 dégg nga ba pare ñu tekki talsam bi mooy arsata maksahu alqana xayun 45 dégg nga arsata maksahu alqana xayun 45 bu pare ñu def ko saafara heure boo demee bu neexee nga dem jàpp ba sell ñëw nag raayu ca saafara bi ba tooy nga too nga daal di naafila juróom-benn rakka rakka bu nekk fatiha la ak qul huwa allahu fukk ak benn mooy onze fois boo salmalee nga def fatiha nga zikkar fatiha 40 safra 21 astaghfirullah 132 salatu ala nabi 132 in tastaftihu faqad jaakumul fathu 132 nasru minallahi wa fathun qarib 132 ya latif 903 bu dee ku mën tal sambi la tam mu zikaraat ko mais comme bindoon nañ ko bal ne xajaru zikar nga def arsata mag saw alxan xayun 903 wala 1111 tëjee ko téeméeri salatu ala nabi talsam bii di arsata mag saw alxan xayun nag ki zikar bi bu dee mënoo ko mën nga koo bàyyi parce que dugal nañ ko ci biir mbind mi dégg nga kon loolu moo doon li nga xamante ne ñu ngi ko doon bëgg a partager ak yéen tey baax na lool nag ci wàllu wàllu ubbeeku parfum bi nak parfum buñ ko booleel baax na mën nga ko jëfëndiko non léegi loog boo gisee ñuy def diko ko répété waat da ngay partager dara ba nopi am ñu la bëgg woowat di la ko tam comme ni ma tous man nak awma jottu partager waat dara ba nopi ma ci jëla temps di ko par téléphone wala par vocal dédé man luma xass ba partager waxna ci limay wax amut luma ci neub luma ci ciopati parce que jaralu ma ko amut luma ci neub nëbb amut lu ma ciy coppati ma ko xamee noonu laa ko waxee te noonu laa ci amoon luma nara def diko ciopati wala may xaar nit woo diko wax dama koy ndax sama xam-xam la ta man mako ko won kon loolu moom nañ ci bàyyi xel ba lépp lu ma partagé na ma ko xamee noonu la ko partagé yokkuma ci dara ci dara soxlawuma ci tej ku ma ci revenir kuy ñëwaat di ma wala nangam nangam dama ko joxe khalisatan li wajhi llah sàkkuma ci leneen lu dul loolu kon ñu xamee ko noonu kon bu ñu joxee te benn secret yow mi ko soxla demal nga teewlu ko bu baax ni ñu ko joxee jël sa bik boo jàngul alquran jàng tubaab nga recopier ko comme ni ñu la ko waxee joxe ko kële ko mu defal ko amaa man ma ñëwaat la ko leeral kooku moom du doon lu may man wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa